fekk da nga am fierté ci Touba ameublement Touba Ameublement vous vient en amélioration sur leurs produits toujours made in Sénégal du jamais vu dans ce pays ñëw leen découvrir suñu nouveauté salon moderne nga xam ni dafa nekk en vogue ca adduna bi yëpp ay salon en tissu ay salon en velours de qualité salon en cuir authentique salon en cuir artificiel wala suñu salon assise ressort orthopédique ay chambre à coucher nous sommes à la rue 3 angle Blaise Diano ak stade Diop 77 555 64 78 77 430 02 02 78 430 59 59 77 431 03 03 Touba Ameublement nous vendons ce que nous fabriquons nous fabriquons ce que nous vendons. ah saa waay. ah jàmbaar mbaay kon yaa ngi nii. ah maa ngi nii de ànd ak saa waay. dinaa la xamal ñaar. Hmm? gis nga yéen seen nekkaay ci réew mi dafa am solo gis nga ni yow day am ay mag ñuy toog di taaj gone yi di wax ak ñoom barki démb dégg naa sa waxtaan nga waxtaan ci lu am solo waaye dëgg la war na noo tukki xam nga sa waay moom ay états si la ne waaye day jaadu léeg-léeg xale yi ci réew mi nu leen di fàttali cosaani réew mi ndax dégg nga ba dëgg naa ndax xam nga ni man sama maam daa bokk ci ña daloon Lat Joor sama maama daan tiim lat joor naan ko sutub saa xewar soxna mbay mbir mi saa xewar na kullu ko duggey wa ngeejoo mu ngi ma jul sombañ wa man gànna layal fay gànna kuunu kuunu gànna git njaan bardaago sama maam sama maam sama joor demee ngol ngol ba wàññi ko moo ko dar way wa nga daan dégg sama ko way lat joor lat joor caar What as you had you had as you go eh. where is you? <laughs> Mani ay cosaan. Ho. xam nga yow sama maam nga xam. Mhm. tey laa lay wax sama maam lam def ci pompiteer. man teer est pompiteer mi ngi koy saaf. Mhm. gisum koof est ce que xam nga kan moo njëkk a. Oh, gisum koof. go. I had you go. miig mbaa mot. voilà. Lucky Sow waaj waaj waaj waaj waaj <laughs> waaj sunu xeet. man it soo wi sunu waj waj jooji déedéet nu waj waj rek. oh oh. calme calme cesse boobu cesse ah bëgguma waaye tamit. xalaat moom ñibbi de. sa sa anglais yi ngay lakk. ñun da ngaa def ñu nu anglais. loolu la loolu la yaakaar ah. loolu la yaakaar qui a découvert l'Amérique. qui so if you know we hide. you know it tous. ah. gis nga yow nag xoolal dam eh. ba yow. da ngay xam ki découvrir Amérique. waaye tamit vie koor ren gi moom macha allah mbaa yaa ngi ciy woor. maa ngi woor bu baax kay sama jigéen ah. sama xarit waaw. fi mu ne nii dégg naa toj nga koor geeg ay suukaru koor yu doy waar. Ah, ku am jigéen ju mel ne Amina Poté bu la neexee def lu la neex. waaw yow da ngaa am maanaam macha allah yal na leen yàlla lafal cat. amin amin amin naka sa rakk yaa ngi leen di dégg. waa ñëpp a si jàmm ñëpp mbaa yaa ngi defar rek. waaw ñu ngi defar ba mu baax ngi dégg barki dem Babacar di ko wax sama xol sedd ba dee. Babacar waaw sama rakk jooju noonu ndeysaan bàkk ma bàkk bu rëy boobu. bëgg ma rek te la la lan la wax. kaka kak kak ma baax ki sagar ndeyam. Vieux Niang Vieux Niang waaw moom dafa baax dafa baax. macha allah ana Sanex yaa ngi koy dégg. Sanex waaw waaw mu dina ñëw nee dina ñëw semaine bi incha allah mais nag fi mu ne nii moom da war dajale leen bala ñoo wari. non ah. indi leen ñoom ñëpp nag. ñoom ñëpp dinañ ñëw incha allah tey rek xam nga nuyul ma sama yaay jooju na ah, allah macha allah yow da ngaa baax. yàlla na leen yàlla lafal cat souvent nag ma gis internet bi interpellé la di la enquête. waaw naan la dégg naa sa xeex beeg poteek sa xuloo beeg poteek ba nga ko mbéjee da ngeen a xamul rek da ngeen a xamul xamul <laughs> ñu ah xamul ni du ma xuloo si mel nga doo xeex doo xuloo billaay billaay mais yàlla lafal cat rek ndax yow fierté Sénégal nga yaatu nga sa xol rafet na li ma waxoon laay tullantiwaat kenn du yow man booba du tey li père wax léegi 2012 la. dafa yàgg dafa yàgg nga yàgg ànd ak man. Mhm. yàgg ma dooleel yàgg ma jàppale. da ngaa neex a àndal boobu tey bu demee ba wër partout dans le monde. da cee def lu baree baree baree. da ngaa neex a àndal ma koy wax. doo doo sëkk jëf te jigéen macha allah te yàlla na yàlla gën a man su ma lay gis ci avion yi di la gis ci aéroport yi di la gis ci avenue yi. sama mm. xol dafay sedd. parce que àddina. Mm. li koy defar mooy nga nekk jàmbaar. boo fi nekkee te xeeboo sa bopp. jombale woo sa bopp dara mm. takkal sa fit nangoo liggéey lépp di nga ko am ay waa kër sëriñ Touba yow borom makarimal axlaa nga yaakaar man ma bëgg sëriñ saaliw te lépp benn la kon boo gëmee sa bopp rek la ma lay wax toujours nee naa la vie bul jombale sa bopp dara nekk ci rek yàlla baax na dégg nga. kontaan naa mais kakak kak bi moom danga ma koy mosal. li ma sama rakk jógee dama baaba kër wey kakak kak. tey ma bàkk ku baax. isaagal naa yow. fii naa. egg fii ci suuf dindi leen dama koy dagg bi arrêté leen loolu te defal kakak ah te nga dégg lu neex la ilaha illallah yéen per nag wax day jeex nag eh! wax day jeex gannaaw ba nga waxee histoire maama pare dama la bëgg a xamal nag si histoire kan moo njëkk a saaf pompiteer firi pompiteer ko njëkk a saaf njaga sekk njaga sekk fu mu ah, gi la dëkk man de boo demee ngéewul yaakaar na am na fa bu fa nekk moo njëkk a saaf man de xam naa ni université bi Cheikh Anta Diop bii bi ñu koy sanc te nga xam ne ay daqaara fa nekk ay guy ñu koy fàkk pour dem hmm. étudiant ba fa njëkk a dugal mburoog ndambe xam naa ko biir université Cheikh Anta Diop. ay xaari mburoog ndàmbe. mburoog ndàmbe. ñebe loo kis yu xeer ba. ndax dégg ma kon man damaa xam histoire. yow léegi kan moo njëkk a dugal mburoog ndàmbe université Cheikh Anta Diop Ndoomoor gii la dëkk. Ndoomoor. Abdoulaye la tudd. est-ce que boo demee bibliothèque bi est fa Abdoulaye. est-ce que sax ma fa nu agrafé. ndax dégg ma ndax moom way juróom mu góor. ay ganaar la daan jëleen doomoor di indi Ndakaaru ndax xam nga ni ganaar daa bari xeet. waa siyo ginaar waa siyo ginaar. cekin poulet cekin. ah yeah thank you thank you. <laughs> ganaar. Mm. daa mbutur gi am coxli xam ramati njillaan am ndul futt am daagung am daagung am njéeme yese am ndare am poulet du pays. ndare mooy bi bi loos bi suqeeku maa xam. te ganaar xam nga xale yi léegi dañoo yàqum ganaar. yàq nan ko. ndax saafungraa bu njëkkoon dañ koy saafara jël kayit dañ koy wëril ak kayit. Mm-hmm. loo loo loolu mooy xoyam ñeel xoyam. xoyam xoyam. te léegi li gën a bon mooy léegi ganaar dañ koy futti. dañ koy futti. futti maam xolli der ba. te xam nga bu yàgg ba ganaar. soow soow ganaar buñ ko daan togg dëgg-dëgg. soow soow. Mm. loolu si si si kii li ngeen di waax. li ngeen di waax dafa ànd ak li ma bëgg a waax. man yow comme xamoo ki découvrir l'Amérique. t'as pas droit de parler ferme ta bec. dégg nga est ceebu jën I wanna see you go to America ba pare nga way wi daaneel ko fan nga mujjee nii I wanna see toog ci may ga di lekk you go to America <laughs> man taxawal man gis nga xam nga dafa am ñoo xam ne dañuy yàq mbiri doomi réew te moom mii ci la bokk boo demee réewum jàmbur doonu sénégalais da ngaa war a am jom am fulla ci sa bopp am fayda. liggéey indi investir ci sa réew. complexe complexe. waaye mun defu ko xam nga lu fa nekkee woon. Hmm? mar poqotaan. waaw oh. what as you mar poqotaan.